waaw xanaa soldat boo xam ne dafa nekk ci waar ñu di ko digal muy liggéey mu war saa su fu mu toll it euh, di ñëwaat ci kilifaam di ko leeral fu mu toll ak di ko siyaar parce que boo tuddee baatu siyaar loolu du ma am fit wi ndax tey jii ku ne xam na ne sëñ bi nee na fii ba alxames jëlee nañ ko may siyaar yi door a démarré kon man sama pas-pas mayuma may doon exception dong yëpp fiñ ne rek laa bëgg a dugg waaye kon daf maa woolu ngir ndigal loolu ma indi woon waaye ñemewuma sëñ bi euh, di tëral dara may jéem a ñaay pour agsi ci moom kuréelu xasida yi nga xam ne ñooy ñëw di siyaar bis bu set nga xam ne xasida yee koy gunge gars yi dañuy jóge fu sori def ay centaine de kilomètres waaye bu ñu ñëwee dañuy jàng ba noppi jóg dem doo gis kenn sax mu jéem a naan naa àgg ci sëñ bi ngir nuyu ko yooyu tamit ay valeur la yoo xam ne moo ma gën a ñor moo tax bi nga nee ziar ma ne la peut-être c'est une visite de travail ñëwoon ngir dama man moom laa nekkal Hizbut Tarqiyyah moom lañ nekkal suñu liggéey loo xam ne bëgg na ñu leeral ko ci fuñ ci toll dañu ñëw ba ci moom lii moo ñu indiwoon. dispositif bi mooy loo am rek def ko ci te bul yemale sa bopp fen ndax sëriñ bi moom loo ko defal yeeyoo na lu ko ëpp kon day ànd ak kersa ànd ak xeeb ko ànd ak jaajuwaat gis nga li ma la doon wax léegi laay tëjewaat euh, euh, dama doon soññanteeg samay bokki taalibe may leen. actuellement adduna bi un milliard sept cent millions wala huit huit cent millions de musulmans ñu ngi fi ñaanu ko mun Muntaxa mi ngi àgg ci ñoom ñëpp dëgg loolu dëgg kuy faj aajo ñëpp bu la nee kon nañ ma may euh, ay fan du pour noppalu day wéet ak boromam di lijjanti suñuy mbir kon bu ubbee nañ ñëw bu nee nañ ko may nañ ko may